Leben! Mm. Leben! Mm. benn clandestin la woon mu ne dégg maam day fàq dugg ci bato pour mën a dem France Paris clandestin bi dégg maam fexe ba dugg biir port otonom dugg ci benn gaal yu mag yooyu jëm France mais làqatu ci biir kal bi dafa dugg rek dégg maam bato bi commencé yëngatu nii nii mu ne ah bato baa ngi départ ndekete bato bi daa paan. sahay tok une semaine di nalo ci batam di yew ci bi batam di lek ay ci afam ba benn goudi rek mo ne a war nañ ag Paris parce que semaine bi mat sa way genn tombe goudi ki gi xam rek Paris Dakar ak Paris day nuro lampe yu rafet yi rek saa yi jàkk suba Paris yak na Paris wi suba tey Paris gi ñëw ba ci benn banc public yo rek tëdd dina yow way jànge mam xam nga fajar gi mu yew ni xol suuf banc gis ay konkorong quoi ay dagatu gercaaf mu ne way moom sénégalais ñom ñoom ñoo salte fu ñu dem woon fi leen jikko ñoo ba paré lek ay konkoron ay ay ay gerte diko sanni fi sànni japp non xam nga doxantu tout rek jigéen gis car rapide ndaysan romb pompier mairie port pompier mairie port pompier mairie port pikin lay jaar pikin lay jaar benn pel mo ñu yéeg ci car rapide quoi ñu yéeg ci ginaaw xam rek Sénégal dañu bari ciow eh pël bi ci kanam am ci kanam dem ci kanam ñaar ci kanam di eh, ci ginnaaw bay jéeg yi buntu gars ne ko demal ci ginnaaw saa yi ci ginnaaw rek ñëw toog nag oto bi départ tuuti rek pël bi na ni dugal loxoom di nga mam ci ci ci ci grand boobu mi xëcc nag jaas yi man li ma bëgg kam mooy kan moo doon wax teema ci kanam teema ci ginnaaw kan moo doon wax teema ci kanam teema ci ginnaaw gars kaar bi ñu commencé lox kenn waxul mu ni soof ba dee kam ngeen ni bopp bi du dem di fi bàyyi taat taat du dem te bopp bi yóbbu nga naan deema ci kanam deema ci ginnaaw deema ci kanam kan moo doon wax teema ci kanam teema ci ginnaaw <laughs> cey Libur! Hum? libun